te mooy nga mën a toog laaj ma ma tontu la mais aussi keneen mën a wax xalaatam wala mën a def xalaatam lépp ci jàmm ak salaam. maintenant réew mu nekk aussi dafa am ci charte yi muy dox bu ñu nekkee te ñoo nekk ci démocratie ak bu sunu réew bindoo dafa am ay pouvoir yoo xam ni ànduñu dañoo am euh, lu ñu ñoo bokk réew mi mais ku nekk am lu ñu la sant maintenant ci réew ku nekk da koy bàyyi mu def liggéeyam ñu ngi toll ci jamono joo xam ni justice. moo ay di def liggéeyam nañu bàyyi justice def liggéeyam ba mu jeex ñoom ñooy apprécier situation yëpp ñoom ñooy xool situation bu bu nekk lañ ci war a def buñ ko defee rek incha allah ñun en tant que gouvernement sañuñu ko bañ kon euh, intellectuels yooyu ñu ngi leen di ñaan appel bi ñuy def d'abord ñu ñaan appel ñu def appel d'abord ñaan jàmm am ci réew mi ñu def appel ñaan képp koo xam ne da ngay woote violence wala loo xam ne day lor wala day yàq nga bàyyi ko ñu def ab